muy lu bett ñëpp ci àdduna bi ci jamono ji nga xam ne ñëpp ñu ngi doon xaar FC Barcelone Lionel Messi daal di fay prolongé waaye moom argentin bi dootul sol maillot FC Barcelone blaugrana yi ñu ko officialisé ci ab communiqué bu ñu fësal donte ne FC Barcelone ak Lionel Messi déggoo woon nañu ngir argentin bi signé fa cinq ans contrat wàññi saleeram ci lu tolloog xaaj contrat boobee duñu ko mën a signéti ndax ay rëkk-rëkk ci wàllum koom-koom ak it ci wàllum règlement liga bu espagnol bi nga xam ne moo ci indi jafe-jafe li ko waral mooy masse salariale bu club catalan bi ba tey dafa jéggi dayoo ba tax opération bi du mën a nekk Lionel Messi mu bañ a solati mayo FC Barcelone bi nga xam ne ci fukki at ak juróom-ñaar yi nga xam ne sol na ko gàddu na fa fukki liga espagnol ñeenti Champions League juróom-ñaari coupe du roi ñetti coupe du monde des clubs ñetti super coupe d'Europe huit super coupe d'Espagne juróom-benni ballon d'or ak juróom-benni soulier d'or mu gàddu fa it juróom-ñaari yoon titre meilleur buteur bu Liga juróom-benn yoon meilleur buteur bu Champions League ak ñaari yoon meilleur joueur bu continent européen bi jamono ji nag ki gàddu woon Copa America bi. li ko desee mooy mu wut beneen club boo xam ne dafa mën a wëyal carrière am gu mucc ayab gi